Merci beaucoup, Président. Honorable député, chers collègues, Monsieur les ministre, ñu ngi leen di nuyu di nuyu seen délégation yi ngeen àndal euh, juste rek euh, par rapport ak euh, le ministère du développement durable de la solidarité nationale et de l'équité mu doon ministère boo xamante ne si ñëpp wax nañ ko ministère bu am solo la parce que bu ñu ko créé c'est parce que y une inégalité boo xamante ne si on cherche à corriger pour mettre les citoyens yi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk dans le Sénégal dans les meilleures conditions ci par rapport au euh, projet de désenclavement des des des des communes foofu dañ fay ñëw parce que dafa am communes yoo xamante ne si dañu wax ne euh, dañ leen a xaw a fàtte ci ci ci programme yi bari ci loolu ñuy ñaan ñoom déjà nee nañ peut-être am nañ problème électricité am nañ problème d'eau mais problème biñ biñ gën a am mooy problème de désenclavement ñu mën ci tudd commune bu buleel nekk dans le département de Kaffrine ñu wax ne amuñu piste boo xamante ne si moom mooy relier Boulel ak euh, yenn communes yi yenn villages yi villages yi ñu mën ci tuddi Woré Taïf Saloum Lamel Médina Kébé Touba Fall Kër Samba Ndiaye entre autres beneen bi muy dellu ba léegi ci communes yi nga xamante ne si dañu am ay problème de désenclavement par rapport ak yenn villages yi ñu mën ci tudd commune de Dia ñu ne am na 18 villages yoo xamante ne si foofu dafa désenclavé beneen bi dañoo am ay problème euh, d'électrification bu ñu leen ci mënee jàppale ñu jàppale leen ci beneen bi c'est par rapport au bourses familiales wax nañ ko sànq bourse yi bu ñu sañoon ñu jox ko ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ko yeyoo mais da ngay gis kër goo xamante ne si papa am na yaay ji am di doom ji am na moyen pour ñu fayal ko mu dem jàngi mais non ñooñu dañuy continuer di jël bourse yi kon dañuy gis ne bourse yi du dem ci ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ko soxla ci moom mooy la population vulnérable beneen bi nga xamante ne si moom la bëggoon wax peut-être am nañu ko laajte c'est-à-dire mooy quel quel lien le ministère entretien avec les les les Et comment dirais-je les collectivités territoriales notamment avec les maire avec les conseils départementaux parce que bu sa euh, ministère buy def day day day def ci seen zone yoo xamante ne si mooy ñoom foofu lañ nekk muy muy muy communes yi ak muy villages yi ñuy laaj ban lien moom moo am foofu see diggante ak ñoom est-ce que y a une étroite collaboration entre wala boog da ngeen di def seeni i programme selon agenda bi nga xamante ni si yéen a ko yoreel seen bopp fi may daanalee c'est juste par rapport dégg nañ sànq benn honorable député ñëw taxaw wax on comprend bien nag parce que c'est un transhumant et les transhumants de dernière heure ils veulent se faire un une place moo tax ñuy waxee neen ñi parce que yaakaar naa problème yi bu mu amee ba léegi man j'aurais aimé tey discours bi nga xamante ne si moom la tenir fi sànq mu teniroon ko le premier jour bi incident yi amoon boobu lay am sens mais defoo defoo discours waxoo artuwoo bàyyi ba problème am nga ñëw na danga nga ciy occasionné di wax loolu on peut pas comprendre c'est-à-dire que da ngay ñëw gis ne situation am na je vais en profiter pour pour me faire un nom pour que le président me voie pour defal ma ay promotion loolu ce sont des choses mbir bu amee nañu wax kenn ku nekk lan moo ci responsabilité kenn koo xamante ni si yaa ngi fi te mbir mi xew nga waroon ci intervenir intervenir oo ci kon bu du bàyyi ba cas di dem di gën a empirer wu nga am droit ne da nga ciy wax boobaa pour gën a mën a mettre en mal ñi nga xamante ni si ñoom ñooy les concernés wala nga bëgg a mettre en mal une partie de la population en l'occurrence les députés de la coalition Yewwi Askan Wi avec euh, ñi nga xamante ni si ñoom ñooy le peuple sénégalais mais ce qui est bon mooy le peuple a compris le peuple xam nag kan fan la dëgg féete bu dee nag dañuy toog fii nekk fii ci salle bi di wax yenn wax yi te bu ñu génnee ci biti taseeg les députés de la coalition nga ñëw ne je suis contre je suis contre li nga xam ne moom moo xew boo ñëwee taxaw fii on te reconnaît pas am na loo xamante ni si du yëfu gor il faut savoir assumer ses positions li ngay wax ci biti nga di ko wax ci biir je vous remercie. La parole à notre collègue Cheikh Aliou Bey Alioune Gueye se prépare. salaamaaleykum wa rahmatullah euh, monsieur le ministre ñu ngi leen di nuyu euh, ak seeni i di nuyu aussi suñu euh, mbokk député yi di wax ni rapidement ci thème bi mois je vais commencer par Promoville yaakaar naa ni am na liggéey bu bari ñu ñu nekk ay maire en zone urbaine man particulièrement Diamaguène Sicap Mbao gis naa liggéey bu ñu fa def Euh, di wax ni aussi département de Pikine bi ma jógee boo xool je pense que Promoville moo yor solution bi war a régler problème bi foofu parce que soxla yi bëri na euh, zone yi war a désenclavé bëri na te en même temps aussi problème inondation yi ak tali yi je pense lu may njëkk a wax ci Promoville mooy na ñu fexe fépp fu ñu def tali ñu boole ko ak assainissement ils l'ont bien fait à Sicap Mbao mais Sicap Mbao c'est juste le visage mais le corps de Diamaguène Sicap Mbao derrière et reste encore très hideux te jàpp nañ ni war nañ fa mun def ay action yu am solo la route Mame jaara yaakaar naa waxtaan nañ ko fii ñu bëri nee nañ ñu monsieur le ministre euh, budget bi ñu yaakaar pour Mame jaara euh, li fay jógee ci ay ñaxtu ay génn ay marche ay barre autoroute barre pour juste pour cette route là jàpp nañ ni Promoville moo ci mun dara donc ñi ngi ñaan vraiment ngeen mun ci am taxawaay boo xam ne euh, dinañu may ñu eggale projet boobu mam Diarra dellu lu meloon mun a désenclaver euh, zone boobu yëpp jëm buun jëm jëm jëm Kër Massar en passant par Fass et en rentrant par le camp de Thiaroye sur la descente euh, beneen bi mooy am na ay tali yu ñu dese ci biir Diamaguène Sicap Mbao parce que tali Fass Mbao bi war a jaar diggante Sicap Mbao extension ak LGI parce que LGI jàpp nañu mën nañu ko ceinturer j'en profite pour faire un plaidoyer pour la LGI la légion de gendarmerie d'intervention ci biir tali yi doy nañu waar doy nañu waar trop je me demande ñoom nan la ñu mën a génnee sax ba mun a def yenn intervention yi mais tali bi nekk entre Sicap ak Sicap Mbao ak yi yoon boobu je pense que am na ay liggéey yu ñu ci war a def j'ai reçu aussi l'appel directeur bi donc je pense que ce directeur bi yor liggéey bi foofu war nañu ànd mardi incha allah jéem a xool ay liggéey ñu war a def foofu ci ci ci ci zone bi. beneen bi mooy euh, li nga xam ne aussi jëm na ci concessionnaire yi leen liggéeyal nga xam ne ci am na ci ay entreprise privées il faut ngeen pousse leen pour ñu def RSE. parce que am na yu ñuy romb yoo xam ne mën nañ ko defaraale te je pense que loolu bu ñu ko dugalee moo gën a am solo électrification mbedd Fass Mbao aussi je pense que farata la parce que mbedd la bi nga xam ne bëri na ay agression te bëri na ay problème euh, yeneen route yi nag je pense que route Fass Mbao la route Ahmed Fall euh, quartier Abdou Ndiaye yooyu mooy route yi nga xam ne ñoo des si euh, jàmm gën si Mbao beneen bi mooy le monde rural man je dis pour PUDC bi dafa Euh, gox bi nga xam ne man foofu laa soqee ko muy tund Mbawor comme ni ñu koy waxee ma gis fa benn route boo xam ne mu ngi jógee géewul euh, dem dem dem euh, dem Bandañ route bi il est maanaam ku feebar koo ci teg du egg hôpital cette route est mortelle je pense que j'ai l'impression que depuis dix ans ñu ngi doon annoncé projet bi di wax ni benn tali la boo xam ne day désenclavé mais nekkati piste la alors que dans cette zone c'est pas une piste dont on a besoin on a vraiment besoin d'une route bien faite donc tali bu baax lañ fa bëgg parce que tali boobu moom li muy def ci ay dégâts c'est c'est c'est énorme quoi je pense que Kébémer ceeb aussi am na lu fa nekk euh, ngeen bàyyi si xel ngeen xoolaale ko euh, pour Euh, régler parce que zone boobu lay produire pomme de terre oignon zone de production bu mag la te production y ñu ngi yàq foofu beneen bi mooy CMI euh, CMI euh, j'ai rencontré les acteurs discuté ak ñoom lu bari je pense que sur la protection sociale man adapt man protection sociale adaptative laa gëm pour man la voie du SALI c'est le yokk koom-koom il faut y travailler il faut y mettre des ressources su fekkee bëgg nañ génne Sénégalais yi ci wàllu ndoom gi et le ce projet là marche bien je pense que euh, responsabilité éclatée sur la protection sociale ñoom jàpp nañ ni euh, CMU euh, ak bourse sociale ci yow la nekk mais am na protection sociale ci fonctionnaires yi ak ministre euh, du travail sur les privés am na aussi fonctionnaire yi aussi ak ministre du des finances aussi ci wàllu donc protection sociale ci acteurs yi dafa bëri pour ñu wala ñu xool caisse de sécu caisse de sécurité sociale ñu koy gën a développé pour ñu mën a optimiser bañ a jël ressources yàqu beneen bi mooy le coût du fonctionnement agence CMU beaucoup de questions posé nañu ma ko lan mooy mission donc bëgg naa aussi nga jàppale ma ci tont yi beneen règlement 07 2009 UEMOA sur euh, les mutuelles sociales am na loo xam ne agence bi ko yor il faut ñu jox ko ñeneen loolu nan ngeen ko fas yéenee gérer beneen bi mooy les prestations. je pense que dette bi mooy problème bi vingt neuf milliards ngeen yoreel structures sanitaires yi vingt milliards mutuelle de santé yi mutuelle de santé yi nee nañ ils sont à terre jàpp nañ ni le président Macky Sall dafa dafa écrasé maanaam cette euh, parce que bu ñu wax les associations mutualistes ay nit ñoom ñooy daje defal ko seen bopp c'est pas un décret mais depuis que l'État a mis sa main dedans mais c'est devenu difficile c'est presque en lambeaux et en terre il faut remettre ça au niveau communautaire beneen bi mooy euh, te bor yi aussi ñu jëm ko fay parce que ñu am budget bu toll nii ba pare am bor yu toll noonu beneen bi mooy contraste bi ñu am encore ci milliards yi nekkoon ci Covid bi nga xam ne c'était pour éponger la dette pourquoi dette des fi ba léegi beneen bi mooy nee nañ dégg nañ ni am na six cent agents yu ñu recruter au niveau de l'agence te deux cent yëpp Matam lañ nekk quatre cent yi lañ séddale ci treize régions yi nit ngi laaj loolu lu ko waral euh, pour ñu jublu ci loolu beneen bi nag mooy Puma euh, PUDC. Euh, euh, programme de modernisation des axes ak kii max président Macky Sall dafa tàmm fekk ay problèmes yoo xam ne crise boo koy réglé da ngay indi programme d'urgence problème structurel boo koy indi da ngay réglé programme de développement mais pendant onze ans nga nekk dans l'urgence programme d'urgence programme d'urgence rapide c'est pourquoi il a raté le coche et forcément il pourra pas s'en sortir euh, parce que affaire yi demewul noonu leneen li mu ci bëggoon yokk peut-être que c'est beaucoup plus euh, ci côté euh, je pense que les financements d'une manière globale et l'approche parce que jàpp naa ni euh, loo approche bu communautaire soo ko laalee da ko assassiné donc l'approche mutualiste est assassinée il faut payer les dettes permettre à ces gens de se réorganiser les sources de paiement aujourd'hui on a DER on a microfinance on a solidarité on a on a beaucoup de financement globalement yoo xam ne sur les 140 programmes yi nekk ci budget bi boo koy xool def ci bëri yoo xam ne population dañu jàpp ne achat de conscience la dañu jox ay nit ay ministre ay xaalis yoo xam ne ay mutuelle ñoo ko waroon yor ay institution financière ñu bugg ko jox ay structure privée ñu koy def man jour bi ma njëkkee dégg ñu ne ma soo soxlaa benn financement xaw ma deer deer la woon xaw ma da ngay dem préfecture sama àdduna dafa tukki parce que li ma liggéey ci développement at yi ma ci def c' est pas des financements qu'on doit donner à des structures publiques je vous remercie la parole est à notre collègue and your mind is a